booy ay booy yu métti nga. gaa yi noose. man noose ko bëgg. gaa yi noose ngay. noose ko bëgg. na nga noose kon incha allah. mais après naa loolu. bu looree incha allah. day wax sénégalais ci élection lañ jëm ci élection lañ jëm d' abord xam nga waaw no violence ñu def ko ci jàmm xam waaw ñu dem voté ji xam nga ku nekk ànd ki nga ànd ci discipline xam ñu voté que le